match bu métti la woon rawatina ak boo xam ne suñu dëkkandoo la dañ ñëwoon naka ngir indil ñooy gàkk-gàkk waaye ñun moom mujjee nañu ko gérer. nii rek la ñu mënoon a def ginnaaw bi ñuy joué ak RDC mi nga xam ne def na jéego ba rëy ci Coupe d'Afrique bi. équipe la boo xam ne nag indi woon nañu problème yu bari waaye tey jii nii rek lañu mënoon wane. faw nit ñi xam nag ni ci championnat la ñu nekk nekkul rek nii dañuy tembo rek yëf yi jeex na. championnat la ku nekk da ngay football te yaakaar naa ne performance yi nekk di def performance yu mucc ay la dara jeexagul. boobaak léegi daal ñu ngi wéy di dajale suñuy point euh, ñàkkaguñu benn match benn bi cote la ñu jël kon yaakaar naa ne ñu ngi ci yoon bu baax bi bu ñu continuer nii coupe du monde lañ jëm. par match tu